yaa taalibal wusooli yow mi aji sàkku yow aji sàkku ak yegg ci yàlla yaa taalibal wusooli yow aji sàkku ak yegg lil maliki jëm ci buur bi mooy yàlla xaalif juyoonteel ak arbaxatal ñeent la da suloki fa suubu ga xum ñoom alxilaa ñooy noon ya li kulli man ñeel képp koo xam ne araada namm na taataman topp yàlla mi nga xam ne yoor yi dana méngale alfata camsa almuraada nammel ga iblis te mooy iblis wa nafs ak bakkan kazalika ni ki noonee alxawa bànneex wa mislu zi kem yi la ad dunya du àddina mutiixuha aji toppam hawa aji rot la mooy aji daanu la ci suuf sëriñ bi ne yow mi sàkkoo yegg ci yàlla nanga nga wuute ñeent booy soobu na nga ñeent te ñooñu kat ñooy noonu képp koo xam ne jóg na ngir bëgg a topp yàlla eh, yàlla mi nga xam ne mooy defal nit ku nekk lam bëgg te namm ko képp koo xam ne jóg nga ngir nangu ngir bëgg koo topp am na ñeenti noonu yu jóg taxaw ngir bëgg laa gàllankoor dambate say tànk ba doo dem ñooñu nag nee na mooy iblis mooy seytaane ak sa bakkanu bopp bi ak sa bànneexu bopp bi mooy li ngay bëgg te amalu la njariñ nekki noonu àddina mi ngay dund nee na ñeenti ñooñu ku leen topp rek bu fekkee ne ku doon sóobu yoonu texe la ku doon sàkku ay ak texe ba noppi mu topp gaa yooyu nee na daa mel ni rek ku xawi koo ca ku yëg ba ca asamaani yi texe ku xawi koo ca asamaani yi texe daal di daanu ci suufu texe di ni rutt daanu ci suufu texe mu fekkee ne koo xam ne sàkkuwutoon yoonu texe it nga xam ne dafa nekkoon rek ci àddina rek kon dafa mel ni war waru na maanaam waroon na ci àddina jëm àlaxira noonu la ko sara bu ma jubut kon ñeenti noonu ñeent yu mata moytu la mu wax la kon ku na ngay def ak moom mu ne faltas ju ne na ngay tëj alkulla képp ca kaso ba wa kas te ngay dammate asilaaha ngànnaayam la wattulub te nga sàkkoo wusoolan ak yegg li lati jëm ci yàlla mi nga xam ne yoxti dana joxe alfalaaha e, yéwénu mbir ga wala alfalaaha texe ga muy defa baaxu mbir ya rek hmm. euh, mu ne kon nag ku nekk ci ñoom rek na nga fexe ba tëj ko ci kaso mu bañatee génn bañ laa lor ngànnaay lam yor bëgg la koo songa it nga fexe ba damate ko te dëgg dëgmal yàlla rek mhm. mu wax la ko nekk foo tëj mu ne fal tas junni da ngay tëj ak seytaane seytaane bil jooxi ca tif ba alwasat bay aji digg doomu euh, nee na seytaane moom yaa ngi koy tëje ci nangoo xiif xiif bu dëgg doomu xëy na am na wuute ci nam ko daan waxee waaye fii nii la ko waxee Eh, booy jàng ma xaalis ak eh, tasawudu sobbaal yaakaar naa am na wute ci nam ko daan waxee tuuti mu ne seytaane na nga koy tëj ci nangoo xiif xiifu dëgg doomu waxuñu nag xiif bu ëpp ëpp boo xam ne dalay mujj ci leneen dalay fàbbi waaye xiifu digg doomu rek fexe ba bala ngaa lekk xiif te booy lekk it bala ngaa yegg ci suur dal di jóg loolu rek moom lañ soxla ci xiifu digg doomu hmm. nee na nga ci tëj seytaane wala tas nii na ngay tëj adduna addina bi boo di man ci bañ kaa xam xasata jàng na nee na addina nag na nga koy tëjee mooy eh, bañ a jaxasoog képp koo xam ne ab jaxasoom amalu la njariñ amalu ko njariñ du jëm ci yàlla nee na bul jaxasoog moom koo xam ne leeral na ne boo jaxasoog moom boo toogee moom du ngeen dolleente ci wàllu yàlla wala moom mu di la dolli wala yow nga di ko dolli rek nee na kooku bul jaxasoog moom kon addina yaa ngi koy tëjee ci kasoog. bañ a jaxasoo jaxasoo bu amul njëriñ fépp fooy toog wala képp koy jaxasool na fekk nga di ko dolli ci wàllu yàlla wala moom mu di la dolli ci wàllu yàlla lu ko mooy rek euh, daw a gën euh, wala ji na ngay tëj an nax sa bakkan ba bi kasarati sahari ci bëri foog amal hawa euh, nee na bakkan nag danga koy tëj ci foog maanaam néewal ay nelaw bakkan da koy tëj ci néewal ay nelaw ci di foog guddi am di ñàkk nelaw te nekk ci it lu am njariñ nekk ci jaamu yàlla waaye waxuñu ñàkk nelaw yit ba noppi nekk ci leneen loo xam ne amul njariñ waaye boo foogee it da ngay nekk ci lu am njariñ nekk ci jaamu yàlla jàng alxuraan wala jàng xasida wala jàng leneen lu jàng ga am njariñ wala def leneen lu baax amal xawaan daal bànneex fa sijnuhu ab kasoom sumtun mooy noppi saxaara feeñ na nee na bànneex nag mooy bëgg loo xam ne amul la njariñ nee na kaso bi koy tëjee rek nee na mooy noppi nee na mooy nopp kon ni mu waxee nii ci ngay déggaale ku ne ngànnaayam kon dafa bëgg a wax fii ne seytaane ngànnaay li lay songe eh, mooy reggaay ko xam ne fu mu toll di regg nga xam ne du xiif benn yoon seytaane da koy ëpp doole waaye bu fa bu saxalee di xiif xiif bu digg doomu rek seytaane du ko mën nee na eh, addina moom fi nga koy tëjee mooy eh, néewal ab jaxasoo néewal ab jaxasoo jaxasoo bu am njëriñ bu amul njëriñ waaye nee na bu fekkee ne. Euh, yaa ngi jaxasoo foo toll rek nee na boobaa kon àddina daf lay bëgg a jàkko bakkan it euh, bu fekkee ne nit ki du yow mukk day nelaw rek nga xam ne euh, fu mu toll daanaka mi ngi ciy nelaw nga xam ne xelam day dal ay cëram mm, sawar bu baax a baax ci nelaw yi nee na boobaa bakkanam daf koy gañe waaye bu bëggee bakkanam bañ koo gañe nee na nay néewal ay nelaw di la ay fogam nee na bànneex it bu fekkee ne nit ki day wax di wax rek di wax lu ko amal njariñ ak lu ko amulu njariñ bànneexam daf koy daal di gañe waaye nee na bu saxee ci di noppi ci yëpp wax ju amul njëriñ rek bànneexam du ko sonal ñuy jéglu bu baax lu ci leerut mbaa mu dëng ci mbaa mu ñàkk ci aw yoon ñu ngi koy jéglu bu baax lu ci jub ñu maase ko sant yàlla sante ko yàlla